salaatu wassalaamu ala mawlana rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu an mawlana abil abbas sayidi ahmad attijaani wa radiyallahu an saaxibi faydatihi aluzma mawlana cheikh alislaam xaaj ibrahim ibn alxaaj abdullahi Niass wa radiyallahu an saaxibi hada alyowm alazim fadilatu cheikh alxaaji sëriñ mbay almusanna bikrul faydati wa rasu saxbi wa fata cheikhi sayidaati saadati wa ala rasihim alxalifa sayidi muhammadul maahi ibnu cheikh sëriñ mbay sayidi sayidi ali ibnu moulaay alxaaj abdullah wa jamia usrati cheikh ibrahim wa sayidi rais aljilsa sharif mahmudul nahwi mahmud nema asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ximlun thaqil altaxaddusu an imlaaqin fi jamii alnawaaxi alxayriya walfadliya mawlaana cheikh sëriñ mbay yakfiihi annahu rasu saxbi wa yakfiihi annahu fata cheikh wa yakfiihi aydan eh, annahu awalu saabiqiina wa bikru alfaydati tijaaniyati al uzma fa kullu maa qiila fi hada arrajuli alazim wa ma sa yuqaalu misla ibratin garafna biha an baxrin la saaxila lahu mbokk yu tedd yi ñu ngi leen di nuyu nuyub lislaam te mooy asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di nuyu ki nga xam ne moom lañ tuddee bés bii xalifaam di cheikh Mouhamadul Mahi ibnu cheikh Serigne Mbaye al musanna ak mbooleem njabootu cheikh Serigne mbay di nuyu it euh, sayidi Ali ibnu alxaaji Abdullah ak mbooleem njabootu Mawlana cheikhul islam Haaj Ibrahim Niass di jagleel nuyoo docteur Ahmed Boucar Niang mi nga xam ne moom la xalifa bi sant liggéey bu rëy boobu nga xam ne mooy lépp lu aju ci troisul fayda mu di ko feeñalee nag ci fenêtre boo xam ne àdduna bi yépp koy seetaan muy symposium international bi nga xam ne gàmm gu jot àdduna bi yépp jublu si fi nga xam ne mooy ma madinatu Cheikh Ibrahim ñooñu ñépp jublu si fi foofu la koy gën di wone ñu ngi koy ñaanal tawfiq gannaaw buñ ndokkeelee xalifa bi ak mbooleem sang yi nga xam ne ñoo ngànk péy bi ñi ngi ñëw ci Ujaala ci waxtaan ci góor goo xam ne ne naa waxtaan ci moom yombul ndax géej la goo xam ne amul tefes te lépp lu ñu war a wax ak lu ñu war a def cheikhul islaam wax na ko ci moom te def na ko ci moom kon lan lañ ci dese mooy jëf yu rëy yi nga xam ne moom la fi jëf ak wax yu rëy yi mu wax ak i xikam ak i ay jàngaleem ñu jël ko muy ay duruus ñu jëriñoo ko moom nag dafa am jagle lool ci Maulana Cheikhul Islam Hadj Ibrahim jagle yi boo ñëwee ba ca gën a rëy mooy li nga xam ne moom la yàlla may Cheikhul Islam Hadj Ibrahim mul fayda tijaaniya al uzma yàlla jagleel Cheikh Serigne Mbaye ci situation boo xam ne niroo lool ak bu situation bi nga xam ne ci loon ci la Muhammad nekkoon ba ko Aboubacrine di dëggal ndax ci kër goo xam ne xalifa ba imlaaq la ci mboolem xeeti xam-xam ak daraja mat maam alxaaji Abdoulaye xalifa lool amee lépp téyeku ci loxoom may yàlla wàcc Cheikh Ibrahim mu ne donkoo si yëg ci kaw taabal ji wax lu kenn mësta wax te kenn dootu ko wax ba àdduna bi tukki ne bunte bi yonent yàlla muhammad baa ngi sallallahu alayhi wa képp ku dajewoon woon nag ci ku Ahmad Tidiane loo bëgg a xam tey boo ñëwee ma xamal la ko ku daje woon nag Cheikh Ahmad Tidiane loo bëgg mu jox la tey boo ñëwee ma jox la ko ñépp ne pat ñum bokkat baayang fa ñum bokkat ndeeg baayang fa xeeti soppe yépp fa waaye darajay nag ci tàng-tàng bi ci weñ gi fi mu ñuulee ñu tàng foofu daraja ji nga xam ne ak maqaama bi nga xam ne moom la yàlla mayoon abubakrin siddiq démb jooju moo ñëwaat di tey cheikh aboubacar musanna moom rek moo taxaw nangul maolana cheikhul islaam waxam bu rëy boobu njëkk a jëriñu njëkk a sóobu te loolu man dégg naa ko ci sama nopp li may doon doon gune ci ñu baay ca kër a xayre mu ne at moomu ci la sëriñ mbay juddu waxuma judd ci ndey ku judd ci ndey ak baay yem ca juddoo goo matoo judd keroog ba Faatimatu Zahra amee yaaye Bukaar mii nettal nañu ko Mariata Baay keroog ba mu amee fatxu bàyyi ne alhamdulilah tey de am naa doom Mariata bàyyi na ko bàyyi ñun nag mooy leen yéen jëróoguma leen di keroog la ñëpp sóobu kon bikrul fayda suñ koy wax dafa am maanaa di ko defee ko foo xam ne xalifa ba fa toog mooy bàkkoo may jàngal ak arab ak ajam lu em noonu nit taxaw wax ko nga taxaw dëggal ko loolu xususiyal xususiya boobu nag dafa ànd ak yeneen yeneen yim ànd mooy mbëggeel goo xam ne dafa xóot lool te dëggu lool ci digganteem ak baay te loolu dafa dem ba bés biñ ko robee ci suuf ba gannaaw bu bay mbay duggee ci suuf sax loolu feeñaat na te dinañ ci ñëw ndax mbëggeel ko xóot googu àgg na ci ne tànn Cheikh Ibrahim muy suma seex mu ma jiitu ci duma ci am mais dama koy tànn ci beneen anam boo xam ne kenn mësu ko koo tànnee mooy soo ma jàngalut yow laa tànn nga jàngal ma ak ku fi mën a ne te soo ma jàngalut jaral na ma toog ba nekk jaahil ci benn riwaaya suñ dajeeg maam alxaaji abdoulaye ma wax ko ne ko yaama ma bañoon a jàngal ci riwaaya xalifa bii toog nga xam ne nee na moo doon bësal baayam mu cheikh Mouhamadul Maahi nee na wax na ko ci riwaaya itam ne ko soo ma jàngalut ma dem ba gànnaar kon kooku xóotoon na lool soo ma jàngalut kenn duma ma jàngal te booba kiy jàngal ñépp a ngi fi te bàyyi wegoon na ko ba ne ko kooku mooy jàngalekat bi mu na ko man yow laa tànn kon tànn bu dëgg boobu sidqu euh, euh, euh, mahabba ako sidqu taalluq ci xusuus siyaam yi la bokk Euh, bokk na ci li nga xam ne mooy xusoosiye yu euh, sëriñ bay euh, ci baay mooy ne na am naa ci sëriñ bi ñett yoo xam ne am ñaar yoo xam ne kenn amuku ci moom ndax nit ñi ñemewuñ ko woon lool ndax jamaal bi bëri woon na waaye xëy ba baa fa mag ñi waxtu wuñ duggee néegam buñ génnee dañuy laaj bàyyi lum sol kon kooku duut koo xam ne bu dogoo ci dara nga discuter kook moom wala mu dogu ci def dara mbaa mu bàyyi dara ngay discuter ak moom ba beneen décision di am loolu bokkoon na ci xususiye bay mbay am mu ne sëriñ bi amoon naa ci moom waxtu wu dogoo ci mbir mën naa wax ak moom mu dogoo ci mbir ne dana ko def yàlla may na ma wax ak moom ba mu ñàkk koo def yàlla may na ma sëñ bi bu dogoo ci mbir ci ñàkk koo def yàlla may na ma ci suma masooro ak wax ak moom lam noon du ko def mu jàllal du ko def ko kon diggante bu xóot la bokkoon na ci xusuusiyaam baay e, teg ko foo xam ne jafe na lool ci jëflante diggante sëriñ ak taalibe ci anam googu ndax pays bii di pays cheikhul islaam lim gën a fonk ci kaw suuf mooy gàmmu moom rek la bàyyi jagleel jël gàmmuxaat bu gàmmuxaatee ba pare ñu bu bagaas yépp mu dem kër ma jëbeel gàmmuxaati moom cheikhul islaam gàmmuxaatal Cheikh Serigne Mbaye def na ko ñetti yoon ànd ak bu mujj ba bëñ beeg fajar jaag waaye ñetti yoon moom la taarix waxte loolu am na yàlla jagleel na ko ci Cheikh Ibrahim ci xusoo moom rekk la bàyyi sosal ziyaara boo xam ne mbooleem akaabir yi ak mbooleem kibaarul muqaddamin yi ñoom ñépp la bàyyi digal ne nañ dem ziyaara ji sëriñ Mbay ziyaara boobu mooy continuer ba bésab tey jii te loolu du caaxaan man sabata wilaayatuhu wajabat xidmatu loolu ci ay xususiyaatam la bokk waaye xóot gi xóotaay bi dem na ba paase foofu diggante Baye ak Baye Mbaye euh, pour liy dëggal li nga xam ne mooy ñetti xalaat yu siiw yooyu ne mooy masoro yooyu nga xam ne moom yàlla mayoon na ko muy wax ak Baye Baye di ko def boo xoolee ñetti baat yi muy su sax bi loolu amut benn werante waaye euh, royaat na ci moom mbootal Abubakrin Siddiq loolu beneen affaire la waaye fata cheikhi foofu la royaatalee mbootam Ali ibn Abi Talib ci shajaa ak quwa ak mawaqifu saab waxtu wu jotee rek moom mooy taxaw mawaqifu Omar ibn al mooy li mu wax léegi ne sëriñ bi yàgg naa dogg ci dara ma dindi ko ci te daf koy def ma dindi ko ci mu yàgg dogg ci dara ne du ko def ma tax ma taxaw ba mu def ko te lépp maslaha la amma la lil xadra wa li ashaabi cheikh kon kooku diggante bi bu xóotloo ci la jëlee décision wu comme niñ ko waxee maanaam lew na lew na xat na li fi sa baay am xat na taarix dafa isbaat ne bay mbay bi muy wax baay ne ko fii xat na war nañoo uuti feneen dafa gis ne moom ñépp ko bokk magi taalibe yi ndax am na ci baay loo xam ne gis na ne ñépp amuñ ko waaye lii daf koy bokk ak moom ñoom ci la wax na leen nañ bind bàyyi leetar gannaaw dafa wax ne bu leen bu bu kuñ saaga kuñ dóor luñ leen mën a def bu leen fayu bu leen xeex te fi mu nekk nii istixaala àgg nañ ci pour moom mu dund fii ci kër baayam ak situation bi fi ne jarul détail mu ne mboolem kilifa ya fa nekk magi taalibe yi bay mbay moo leen wax ne pour bokk ak ñoom mbir yi nañ leen bind bàyyi leetar laaj ko ne ko situation bii ñu nekk ba métti mu ne bu leen xeex bu leen xuloo ak lu ñu leen mën a def te xam na ne ñu ñuy def situation boobu ku ci nekk lan mooy xattu sharia bay mbay moo wax mag ñi loolu bàyyi na ko baatab hijra ba baatab hijra boobu toqee ci lompam leneen ak fa ma bëggoon a jëm àgg naa fa kon nag sëriñ bi fii xajatoo fi réew bàyyi nag yàlla daf koo may may goo xam ne may gii lum rëy rëy mën na ànd ak ndimbal tam nangu ndimbal li ñi àndoon ak baay bi muy ñëw Medina te digg bëccëg la loolu wuutewut ak ne bay mbay moo ishaara woon loolu waaye dàqu itam may yàlla yi nga xam ne moom la ba yàlla joxoon baay ci place bi mu war a jëm fan la ak nan la ndax ñi àndoon ak moom daf ne digg ba bëccëg la jóg njolloor taxaw na ñetti yoon ci yoon wi bu ci ne dafa taxaw xool ci asamaan xool ci suuf daal di jël décision ne du fii def ko ba muy ñaari yoon ñetteel gi ci xay gi ci la taxaw xool ci kaw xool ci suuf ni fii la jëmbat fa xay ga na suñ baay baba roqi ñang dee ko suuxat bu dee nga dee fii ba mbadaxun ku utut kër sa kër dana sori te dana seet terew riwaaye yi nga xam ne moo jóge ci alaaji baraam jóge ci xalifa bi ci li nga xam ne mooy mubaadaraat yi bay mbay doon def ci tànnal ko palaas ak seet si dëkk ba ak lépp lu ci war riwaayaat yépp saxiixa la te dafay tegtale may yàllay baay ak taxawaayu seex sëriñ mbay ci lépp loo xam ne baay a ngi koy def lu jëm ci ñaareel bi mooy bés bi nga xam ne ci la baay njëkk a nawet at mi njëkk a ñawet euh, Medina jógee Koosi ndax ñun ñëpp xam nañ ne bi dàll yi bëree néeg baay xalifu bu em ni biñ xam ne ko dàll yi dafa teel na dem Koosi ca daara ja bi baay demee ba xam ne may yàlla àgg na ci mu nekk sëriñu àdduna bi yëpp te yar na ñoo xam ne ñooy nekk sëriñu jour région bi yëpp ci la jël décision nawet si Mérina nawet bi mu njëkk nawet Mérina ku ko fekkee di ko nettal xalifa bi alaaji Abdoulaye mu oolu ma ne ma kaay teew ndax man fi mu ne sukkar si tax na takk melatuma ci noonu te yow macha allah yàlla may na la takk fekkeel jotaay bi jotaay boobu bay mbay li Mawlaay Alaaji Barham maa ngi koy nuyu soppe la euh, baay la sëriñ la waaye dafa ma jegeloon boppam lool te ci mbaaxam la maa ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla yokk ko leer euh, lu euh, mubaadara boobu bi sëriñ bay defee mubaadara bi ba pare ba baay di jël décision am na sax bay mbay lu ko ci bett ndax wax na xam na wax na ne su ma xamoon ne man lañuy njëkk a yebal ni konoon du ma ko du ma ci du ma ko proposé kon loolu wéral na ne moo ko proposé waa ji toog di nettali daf ne bàyyi daf ne ana sëriñ mbay mu ne ko ñes mu ne ko laamaram fala bay baraam juddoo ak bay mamat ana sëñ Ibra mu ne ko ñes mu ne ko kebe bay Ibra moo mu nettali ci làmmiñam ne ma teen ba ma fa bëggoon a gas ña ma fa fekk dañ doon du bënn bëgg maa waaye dam dam laa ko gase ana sëñ Ousmane Ndiaye mu ne ko ñees mu ne ko kër makaañ ji suma sëriñ Mawlaay Alxaaji Abdullah Alxaaji Karaw bi bàyyi defee loolu tas ñooñu ba pare dafa joxe démocratie ne leen taalibe yi yëpp seen sëriñ yaa ngi nii man maanaam la ca des nag man mi sob mooy ne yéen seen sëriñ ngi nii man sëriñ àdduna bi laa kenn ku nekk na tànn ku ko neex mu des ñaari place stratégie déedéet bay baraam ci kër ma jël jëlbeel bu ñu daan waxtaan dafa ma wax ne baay bokk na li ma naqati ci histoire ku barkewut bu ñuy nettali histoire duñu la tudd baay daf ne ana Omar mu ne ko ñes mu ne ko ngeer daldi ne mu tes ñaari place stratégie mooy capitalu fayda bi ak capitalu économique bi nga xam ne ñoo amee dund sàqab maam kër maam alaaji Abdoulaye Niass te baay moo ko téye woon ak loxoom foofu duma fa guddal Cheikh Omar la fa yebal ndax dafa yaatu mu des bu Cheikh Seydi Ali Cheikh Seydi Aliou ñaari riwaay yëpp wér na ndax bay mbay nangul nañ ko ne mu daraat yépp yi muy defal baay baay daf koy nangu waaye kiy nettali taarix bi ca fekkoon mu teew fa gannaaw bu ko bay mbay proposé li mu koy proposé ba pare Seydi Aliou rek daf ne ana Cheikh Omar mu ne ko ñes Cheikh Omar Touré mu ne mu ne ko Kóosi moom la yebal Kóosi moo bay tool toolee ba bàyyi na ko daan nga ma ki nettali histoire bi ne bàyyi mooy borom daan ndax waa ji xam na ne Cheikh Omar ne bàyyi borom daan mais mu ne Seydi Aliou rek la tànnloo ne ko Seydi Aliou yow foo tànn mu ne ko man yow laa tànn ak fi nga ne uute wut ak masoratu bay bay ñaar yëpp dëppoo na. ndax boo ma joxee mu baa dara man nangu ko man may kilifa gi su boobaa ni mu koy tanfiisee maa ko xam kon riwaay yëpp wér na mu ne ko foo tànn mu ne ko man yow laa say daal yu ne ko man yow laa tànn ak fi nga ne mag mi ku nettali maa ngi toog alxaaj Ablaay a ngi toog ne de baay mu ne baay bi say daal waxee ne ko yow laa tànn ak fi nga ne baay dafa binni ba soxna yi ci kër ga dégg ko ne ko loolu baax na ndax ñoom ñi dem luñ bëgg a bind lu ñu ma bëgg a wax bind la ko lu ma leen bëgg wax nga bind leen ko secrétariat généralu fayda bi daal di taxaw ba léegi masharatu bay mbay ngi ci biir suñ demee nag ba nga xam ne léegi sanc yooyu foofu laa bëgg a xóotal parce que ki ñuy waxtaanee du nitu ordinaire su ngeen déggee ma tudd dëkk yi yépp pour ngeen xam poids bay mbay ak xusoosiyam ak may yi ko yàlla may nañ seet centre yi ma tudd yëpp boo ci ginnee Koosi ak fi nga xam ne mooy Medina Baye nga xam ne loolu bi xiyaadati cheikhul islam Hadj Ibrahim ñooñu dañoo génn ci muqaarana bi ma ne jool tuddal tuddal nag mboolem yi ma tuddoon léegi amut ci fenn foo xam ne mel nga ni ma ma ma maskanu rasu sax bi markazu fata cheikh yi dégg nga markazu ki nga xam ne euh, moom rek mooy ki nga xam ne mooy awalu assaabiqina fil fayda amut benn développement ba fa am ci xam-xam ak ci euh, iqtisaad ak ci tawaso ak yaatal ak jàng ak jàngale amut benn mërkës boo xam ne am na ko loolu bokk na ci liy tegtale xususiyaatu Seex Sëriñ Mbay ak xuwaam ak lim doon fent moom mooy ci nga xam ne moo ci jiitu te centre moo jiitu mbooleem centre yëpp bi la stisna comme ni ma ko waxee boo dindee Médina ak Kossy lan la jiitoo soo jeex soo man téere Seex Sëriñ Mbay ak taalif xam-xamam du ci xóot duma ma ci sori ndax góor ñi defal bañ mën a taalif góor ñi ñu defal bañ nekk ilimaan góor ñi ñu defar ba muy defare ñooñu ñoo gën a foor téere te ñu àgg nañ ci taalif ay téere kon nafaxatul qudsiya dégg nga ak majaalisu gaana ak Saria ak Sokoto ak Samfara ba nga xam ne Sëriñ Mbay lañ koy tuddee dem naa ba ci néeg bañ ko doon dalal yooyu duma ci tënk waxtu wi mais damay dem ci góor ñi nga xam ne ñoom la préparé bañ mën a préparé ñeneen te loolu yëpp ci centre Cheikh Sëriñ Mbay fa la juddoo boo demee euh, da nga fa fekk euh, comme niñ comme niñ ko waxee dafa am ay kilifa yoo xam ne yii moom moo leen yar Euh, bokk na ci ñi nga xam ne euh, Cheikh Serigne Mbaye moo leen yar euh, jàngal leen defar leen ñuy ay royteef yoo xam ne ñépp mën nañ leen a tudd d'accord cinq minutes mën nañ cee wax lu bari daanañ ci def commentaire bon dañuy fekk ne sëriñ daara alxaaji ñaan mën nga ca biir waaye lu ko jiitu Saaliw Njaay sëriñ daara Saaliw Njaay mi kër amat xoja moo ko defar ba muy defare ki nga xam ne mooy aalimul alaama wa ujubutu zaman dégg nga ca bongel mooy ki nga xam ne mooy kàbb caam sa noonu soo demee euh, Fuuta boo demee Jolof boo demee Gàmbi boo demee fu nekk Ousmane Badiane laa maram dégg nga Moustapha mu siiw mi ak ki nga xam ne mooy mu Moussa Ndiémé mi nga xam ne moo gën a siiw ci ñi jàngal doomam laa fekk ci sa ci xalifa bi mu ne ma kooku mu ne mu ne ma Baay Faal bay mbay la kon ñim defar ñu dem nag ci jéem a def xitaam bi parce que nee na ñu cinq minutes moo ji des waaye foofu dama fi fàttaliku waxu soxna su baax euh, doomu sëñ daara ñaan dama ko fekk ci xalifa bay mbay mu ne ma waxtaanee may yàlla ci bay mbay xajut ci jant ma ne ko loolu laay tëjee suma conférence kon bu ñu ma tënkee ci cinq minutes mbaa dix minutes dañuy xam ne ñun ñëpp ñu doon wax du jeex te lim am du jeex léegi soo gisee euh, li nga xam ne mooy euh, mayu Cheikh Serigne bay ci xitaam bi ak digganteem ak baay mooy koo xam ne dafa taxaw wax ne suma nopp bii duma ci dégg baay dee na diggante bu xootee noonu mosuma koo gis bay mbay moo wax ñëpp di dégg ne suma nopp bi duma ci dégg tàgge alaaj Ibrahima Niass ba pare tàgge boppam ci xasidaam boobu juróom benn fukki bayt ak juróom ñett ya malakul mawtu buy wàcc na nga fiy bàyyee ñi nga xam ne ñoo fi nekk ak doom yi ak soxna yi ba tànk yi laxasoo ba roxo gi génn bañ laxat ba rob waaye nag foofa fa la waxee ne ki nga xam ne mooy cheikhul islaam di cheikh Ibrahima Niass kooku mooy suma sëriñ ba ma juddoo ba ilal abad doona an ahid te loolu mooy am kon ci loolu ci la génn àdduna ci loolu nga xam ne mooy loolu ay ay ay ay xikamam boo ko jëloon du jeex karaamam benn laa ciy nettali rek doy na ndax boobu daf ci wone maqaama baay bi ñuy barke raay la nit jaan matt dongat ji dem ba gi jekk ko mu tëgg ko mbéj mu génnee ci deret loo xam ne dafa ñuul kukk ne ko acca demal ca tool ya moo moo dàqoon a bay gaay waaye fa mu ca wonee maqama baay bi jaan màtte nit ba mu àgg fi mag ñiy wax ne bu gisatut mbaa biir bi daw day dee kenn mënu ca dara ba mu gisee ne dangat ji àgg na foofu bay mbay daf koo róof ñëw béccil ko bàyyi ne ko sëriñ bi gaawal wa maa minna illaa lahu maqaamun ma'luum loolooy maanaam bay mbay dëpp di dem ci waar wi waa ji jóg romb bay mbay foofu laa yem ci karaama yi ndax bari na lool soo àggee ci ay xikamam nee na xarit boo mënta am ci ñett sooye boo ba ko du sa xarit boo mënta am ci moom lu kenn amut mu di la wax lu mu waxut kenn dégg te itam nga man ci moom lu kenn mënut buñ ne tëna boo demee mu dem ku ko amut ci xarit baxal te ñett yi yépp sëriñ seen mbay amoon na ko ci bàyyi fi may tëjee fi may mujjee seen diggante xóot na xóotaay boo xam ne bay mbay li mu ko wax ci ba ko bàyyi wax ci risaala xaju fi waaye bi may tëjee mooy bi ko garaat bu ngand bi nga xam ne moom la ko bàyyi mujj a ràngal mooy bi mu génnee àddina 73 maa ngi taxaw muy taw parasolu baay bi mi ngi toq ci sama kaw ba bi muy wax ki nga xam ne mooy alxaaji abdul aziz ne ko jullee ko muy joxe ngànt mu ne ko soo ko julleewut duñ ko jullee danañ ko rob te duñ ko jullee mu taxaw jullee ko bay mbay dafa defaat beneen tasaruf boo xam ne ajibu jiddan te loolu mooy wax ne umqu alaaqati ki nga xam ne moo waxoon soo ma jàngalut danañ fekk fii soo ma julleewut parce que bi nawet la bi yàlla ji tawee dugg ci bàmmeel bi bàmmeel bi dafa rës ki nga xam ne mooy caatam maam alhaaji abdoulaye ki nga moom cheikhu omar doomam di xalifaam xalifa baa ngi nii toog moo ma ko nettali kooko ko nettali ne ko suma baay moo daw ci sëriñ Aliou wax ko ne ko sëñ mbay yëf ya rës na ba ma ngay feeñ mu dem sëñ Aliou ñëw wax ko baay ñu ànd dem bay limaan nga taxaw ñu génnee ko defaraat ko suul ko bay kabar julleexaat ko bañ paree mu ne bay mbay mën a bañ di bañ di dund bañ di dee man la bëggoon ma jullee ko jullee naa ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah